xanaa am ci tiis bu mag a mag a mag a mag comme ndey comme yaay euh, ñu ngi wax lu tolloog ñetti téeméer loolu lim bu bare bare bare bare la voilà sama sama xol ak sama xel dem ci ah, ñi nga xam ne njort nañ ne xëy na seen doom yaa ngi woon ci gaal googu euh, di bokk ak ñoom tiis bi nga xam ne ñu ngi ci ndax ku réer géej moom wala faw nga ñaaw njort kon li nuy xaar mooy gouvernement Sénégal ak président Macky Sall wax ñu lu xew ndax li ñu li li ñu xam yëpp ñu ngi ko xamee ci télévision bitim réew yi waaw bu nuy wax nag ñetti téeméeru sénégalais yu réer ñun information yi fi ñu ko bëgg a jëlee mooy ci gouvernement wu Sénégal ak président Macky na yónnee ay bateau comme jëndoon na ay bateau pour sécuriser géej gi ñu dem seet xool ñooñu ñan lañu fu ñu jógee parce que nee nañ booru voilà ci booru Casamance booru Kafountine lañ wax ne fa la toll fa la Euh, gaal ga jóge ñetti téeméer bakkan euh, jar na état du Sénégal xar tànk tubéyam pour xam lu xew waaye li nga xam ne aussi vraiment bëgg naa ko wax mooy wax suñu ndaw ñi ñu ngi leen di ñaan vraiment euh, ñu ñu ñu ñu am yaakaar ci seen réew ndax février bii di ñëw beneen gouvernement yam kooku sénégalais yee koy tànn ak yàllaa koy décider donc war nañ mën a am yaakaar ne suñu xale yi bu nu leen jàppale war nañoo mën a des fii ci Sénégal tedd fii teral seeni wayjur moo gën jël géej gi nga xam ne ah euh, chance la rek waaw te boo nekkee ndaw nag war wax dëgg yàlla lañ gën a soxla ci yow mooy nga dund booy ñaanal xale da nga koy ñaanal mu dund te barkeel defe naa ne mën nañoo dund te barkeel fii ci Sénégal bu leen encadré encadrement bi nag mooy ñu fexe ba def ay coopérative de production pour les jeunes am li ñu naan industrialisation maanaam ubbi ay usines te loolu mën nañ ko def carax yi ñuy sol yére yi ñuy sol ba ci bant yi ñuy secréto lépp bitim réew lañ koy jële te wax dëgg yàlla sénégalais borom xel la bu ñu leen jàppalee organiser leen ci quartier yi ak ci village jàngal leen nu nuy produire cure ñu war koo mën a produire bu ñu leen jàngalee nu nuy defaree puso war nañ koo mën a defar loolu yëpp bitim réew lay jóge wax rawatina nag tissu ak ni mel kon bu fekkee ne encadré nañ leen ba ci ba ci suñu mbokk ngay armée sénégalaise warul di jëndi la muy utiliser ci yére ak dàll bitim réew war nañ koo produire fii bu nu organiser suñu jeunes yi def ko coopérative xaalis ba nga xam ne moom lañ naroon a jënde ñu jàppale leen ko ñoom dinañ ko produire fii noonu ci Saalum gee nga xam ne fa dëkk bu nu organiser les jeunes ci ay coopérative jàngal leen ni ñuy def lee defaree diwlin ju sell kon ñu mën a defar diwlin di jaay ko fii ci Sénégal mën cee tedd mën cee barkeel kon maa ngi ñaan jeunes yooyu vraiment ñu bañ a Euh, as risqué seen seen seen seen vie ci géej gi bañ koo risqué toog fii am ne aussi ci seen ndey yi ndax yaay yooyu xam nga xale yooyu ay ndeyee leen jur fi mu ne nii ñoom ñëpp ñu ngi ci jaaxle xam ndax dund nañ wala newatuñ fi kon vraiment ñoom it bu ñuy jël décision boobu voilà ñu bàyyi xel aussi ci ndey yi leen jur ñun ñii voilà xam ne fii ci Sénégal seen avenir mën na fee ne mën nañ fee tekki mën nañ fee tedd ndax dëkk bu nekk nag yaay defar sa bopp dëkk bu nekk yaay liggéeyal sa bopp ba avancé te ñun dañu am yaakaar ci jeunesse bi ci ñoom lañu am yaakaar voilà bëgguñu ñu jël géej gi voilà duñu ndax lii xew nii moom euh, weesu na metti weesu na metti ñuy laaj gouvernement bi mu wax ñu aussi euh, lan mooy situation bi te gouvernement bi mois de juillet ba mois de février ñu xam ne dañu war a liggéey président Macky Sall euh, mandat am février lay jeex kon ay ministre am nañu jublu ci liggéey ba février waruñoo nekk rek di politique ba février jot ay waxu kuy candidat ku dul candidat li nu soxla mooy ñu liggéeyal askan bi ba dernier jour sénégalais yi fal ki nga xam ne moom la ñu war a fal bu ko defee Sénégal jëm kanam man noonu laa ko gisee vraiment di def un appel à la jeunesse wax leen ne c'est possible ici fii ci Sénégal mën naa nekk ni ma ko waxee bu nu organiser suñu jeunes yi utal leen ñoom ci seen bopp ñuy produire ñoom ci seen bopp moo xam ca mbay ba la tey da ngay gis ay nit ñu weex tàll jóge bitim réew ñëw jël suñu suuf di ci liggéey di ci tedd dëkk fii loolu it jeunesse bi pour ñi nekk waalo la mais état moo leen war a organiser parce que nit ki aussi bu amul yoon bu mu jaar du ko xam organiser leen d'abord en coopérative de production yaa xam boo dëkkee Ranérou da ngay produire meew bu ko defee meew ma ñu defar ci pëndax meew Sénégal day importer pëndax meew bu nawet jotee léegi boo demee booru Ferlo dangay gis ñuy tuur soow soow mi kon loolu mën naa nekk bu ñu amee vision loolu nag man li ma jàpp mooy priorité numéro un ci Sénégal ginnaaw wàññi njëg yi wàññi dund gi parce que xale yi aussi lii tax ñuy dem mooy dañuy gis seen famille yi du noo du voilà duñ ci mën dara seen xol jeex voilà ñu ne ñun daal nañ nañ seet ndax dañuy dund wala dañuy dee bu ko defee ñu mën a jàppale suñu yaay kon dund gi aussi bu nu ko wàññi woon loolu man dama gis ne priorité la xëy na aussi dina tax famille yi gën a dal xale yi gën a am voilà gën a dal pour seet yoon yi ñu war a jaar fii ci Sénégal pour mën a tedd ah mais xaw ma ko waaye jaaduwul xëy na dañ cee xamul dara waaye nag ñoom ci ñoom rek lañ mën a yaakaar am information gouvernement buñ la nee lu tollook lu xa bu ñu xaymaa lu tolloog euh, ñetti téeméer yoo xam ne sa dëkk la ñu bokk xëy na réer nañ ci géej gi yow la nga war a jël mooy sol sa dàll wala wala wala wala taal bato yi dem wari leen wax sénégalais yi ne sax ah amaguñu information ñu ngi leen di wër wala bu fekkee ne jaar njort nañ ne ñooñu yàlla moom na leen ñu informé ba tey jéem a seet def enquête xanaa ci lañu ñu ne waaye nañu wax ak nit gouvernement da ngay informer ce peuple mais patt pataaral ji moo tax ma jël aussi kàddu di wax voilà pour ñu xam parce que ay ndeyee ngi toog jaaxle ay bàyyee ngi toog jaaxle ay soxnaa ngi toog jaaxle xamuñu seen borom kër gi seen i doom fu ñu nekk donc dañu war war a jël la parole lu mu metti metti nga takk sa fit jël sa courage à deux mains ne situation bi lii la te nag mooy li ma wax président Macky Sall donte dootul nekkati euh, candidat war naa fexe gouvernement am liggéey ba février liggéey wi nag lii ci la jiitu ñetti téeméeru suñu concitoyen réer déggoo kenn ku ci wax du ministre des forces armées parce que moo yore marine voilà du ministre de l'intérieur du kenn ku wax voilà donc moo tax ma yëkkati kàddu aussi pour interpeller leen vraiment ak naqar nag naqar parce que ñun li ñu bëgg mooy suñu jeunes yi toog fii voilà ñu leen di gis ñu ñuy gis suñu ay doom kenn jurut ay doom pour que voilà après ñu naan la ndax dee na ci géej gi wala deewul ci géej gi donc jeunes yi aussi bu ngeen di jël décision wu dem xalaat ni aussi seen ndey yi wax dëgg yàlla ba dafa naqar yoo xam ne yii Euh, voilà kenn xamul nu muy war a mën a toll